ci samedi bi weesu daal naa bu ma juumul la kaat la la xëy tàgguma jàngi wàccul gise maa gis ba mu xëyee sept moom sept heures lay faral di génn hmm, da fekkoon day def ren bac euh, day def ay cours buñ jàngee ba trois heures cours day gont def ay cours fan yu am cours fan yu amul cours dañuy def groupe de travail mook ay moroomam nee na heure yi ay ay ay neuf heures la daan ñëw gën jaa yéex mu wàcc neuf heures mais keroog toog nañ fi ba vingt deux heures vingt trois fekk man damaa tëdd fii julli timis ak tëdd fii laa lal tëdd xale bi seetaan tele ñuy reer ñu dema kaay reer man suur naa magam ñi nga xam ne day ñëw moom daanaka si ñoo bokk heure yi ñuy ñibb si mag ji ñëw toog fii jàkkaarloo mu sëdd fii mu ne ma ana Binta ma ne ko Binta day Binta ñëwul mu ne ma déedéet ma génn dajeeg magam bi ma ne ko ah waa Binta dafa ñëwul ba tey mu ne ma ah loolu day jaaxal na ma ma ne ko ah ah loolu doy na waar Binta daawul toog ba heure bi vingt-deux heures passé na moom mu génn dem suñu kër dëkkandoo bi am ku fa àndal ñu dem. ci benn euh, ku mbokkaloon classe moom laa lay wax ni ñoom ñett moom ñoom ñett ñooy faral daan toppante ci composition ak yépp mu dem laaj kooku kooku ne ko bint di xëy siwul tey jàng siwul te sept heures la fi génn waaw depuis boobu ba léegi sonn metti trop metti torop torop torop torop ñun ñëpp a jaaxle kenn du lekk kenn du nelaw man fii laay toog ba trois heures du matin day fekk tëdduma dara duma ko nelaw dara dara bëccëg bi li may xaw a kii tuuti sax muy nit ñi di ñëw ñu ñëw di toog di waxtaan ak man mu may xaw a tuuti waaw sinon bu ma wéetee rek damay am problème man la waxoon rek déggaatuñ ko fenn fenn portable soo wootee day fay même guddi googu dañoo woote portable fay soo wootee portable am fay. am nañ ci tànge ndax xamuñ ci lu mu ne xamuñ ci lu mu nekk. ku ñu dem laal dañuy wax ni du dem bi du du lu mu sabab lu moom du bëgg-bëgg boppam maanaam du dara la wala nit ko dañ ko def daal dara la daal du du neen daal waaw du neen daal maa ngi dundee yaakaar ndax li tax may dundee yaakaar sonaluma dara judd ma toll ni mu musuma am musuma indil benn coono jotewul la dara jàngi wàcc ñëw jàngi wàcc ñëw xamul génn xamul dem fenn dëkk bi de moo yóbboon ne génn na ko benn yoon dem Touba doom baayam la àndal màggali ak jëkkëram boobu la mës a génn dem Touba illaa tiwaawoon jeex na waaye waaye ginnaaw loolu xamul fenn kër gi dem fenn du dem fenn magam yi sax bu ñu dee dem fenn bu ñu ko nekkaay danaan demul koñ bi ñu bari xamuñu ko du ko ñàkk xel macha allah du ko ñàkk xel tey ji ko jàngal ko ko jàngal ñaari at avant muy am entrée en sixième léegi bitim si jot la fi jóg mu ne man de li ma ko ñaari at ko yor musuma gis bëtam du siggi xool ma musuma gis bëtam sonal nañu sonal na suñu dëkkandoo sonal na suñu mbokk yëpp dañu dong tiis yu ñun ko bokk ndax boobu ba léegi nit ñaa ngi ñëw su ma xëyee damay recevoir ay nit di recevoir ay nit ba jant so ñu ñëw di ma ma saw na yàlla kay ñu ngi ñaan comme ñoom ñooy eh, kilifa dëkk réew mi ñaan ndimbal ndimbal li mooy lan jàppale police ak gendarmerie ñi ci dëkk bi ñi ci àll bi nañ ma jàppale ndax ma mën a jotaat sama doom mu mën a dil siwaat samay loxo loolu rek laa bëgg dara bañ koo jot loolu de laay ñaan yàlla sunu borom musuma am ci mom luma metti bu dul demam bi demam bi de la ma sa am lu ma metti ci mom doxul demul fen jàngi ñu tok ci kër gi lim mujjé sol bis bobu euh, tay gabonais bu bu bu bu kii bu bu am petit pois mm-hmm. bu bleu mu am ay tip tip yu yu weex mom la sol bi fi jog fi la ma bayyi may julli fi nga tok ni fi la la si jaata mu dugg ci biir néeg bi ubbi armal bi am lu mu jël mu daal di génn ba ma dégg mu ubbi buntu kër gi génn dem mu del si daal ci jàmm ak salaam loolu laa bëgg dara bañ koo dal bu ko dégg sama wax bi gis ko ci bërëb dina ma jàppale lillahi wa rasulihi xamul dem fenn fii rek la xam waaw boo bëgg rek jàppale ma lillahi ku ko gis nga jàppale ma ci te yàlla tax bu dee tam ci ay loxo la nekk loxo yi mu nekk na ma yërëm yërëm samay am di jaam ak samay mbokk ñëpp a jaaxle ñépp a jaaxle fi mu ne nii kenn noppalatul kenn nelaw nit ñaa ngi sama dëkkandoo yi dañuy jaabante rek waaw.